ma ñëw ci parrainage bi ak parrainage yi bu ma kenn wax baara sa semis bi rafet na nag parce que xam naa ko parce que dafa am ñu may bind naan ma baara dafa mel ni yow xamoo ne Ousmane Sonko dañ koo bañal euh, euh, maanaam parrainage bi dañ ko génne ci liste bi joxuñ ko liste bi joxuñ ko lii joxuñ ko lële sama gars yi dafa mel ni yéen seetaanu leen waa ji démb wax na ko dafa mel ni dañ ko seetaanu wala yeen da ngeen xamul projet Ousmane Sonko wala da ngeen xamul ñun patriote yi manam lan lañu capable ak lan moo ñu ñor li ngeen nek ni yëpp pour man ay détail la parce que waji demb démb na yeen xamal leen carrément ne leen même bu nekkoon waxuma 5 10 genn nañ ñu jox leen parrainage ñu genn wacc terrain bi terewul ñun unique et seul candidat bi ñu am Ousmane Sonko ñun su fi ñu focaliser wu ñun li ñu ñor du affaire de parrainage de nangam ñun Ousmane Sonko moo ñu ñor Ousmane Sonko mooy sunu candidat ñun benn candidat lañu am amuñ plan A amuñ plan B amuñ.